ñii di waa fédération des syndicats de la santé ñu ngi wone seen mbégte ak kontante ginnaaw ba ñu amalee seen signature protocole d'accord ak ministère de la santé. tey jii euh, dañ doon waxtaan ak euh, autorité ministère de la santé pour signer protocole bi nga xam ni ça fait des mois presque sept mois ñu ngi ci doon waxtaan bon sept mois aboutil woon ba nu génn mais ñu ngi sant yàlla di sant aussi ministre de la santé bi nga xam ni suñu tëjal buntam. mosuñu suñu téléphone am malgré sax bon kii yi metti woon na mais toujours dafa wax ñu continuer di waxtaan te bëpp boobu tey de façon technique ñi ngi doon continuer di waxtaan. ca noonu ki yor seenub kàddu daal dinay ñëwaat ci ay points yoo xamante ni d'accord nañ ci. Eh, yàlla def na nag sutura ba li nga xam ni moo doon problème bi nga xam ni moom moo doon bi gënoon a jafe mooy problème indemnité logement yi nu waroon jox contractuels yi nekk ci hôpitaux ak yooyu d'accord nañu pour jox leen ko ak personnel yi nga xam ñoo nekk ci yi te bientôt dinañ saisir conseil d'administration yi pour que ñoom parce que ñoom ñoo am sañ-sañ pour créer indemnité yooyu pour ñu mën ko dugal ci ci ci mbir mi. actuellement tolloon nañ ci junni ak ñeenti téeméer infirmier ak i sage-femme yoo xam ne tey jii reclassé leengul leen ci seen hiérarchie bu bu bees bi mooy bac plus 3 bi xam nga mais ñoom nee nañ dinañ fexe ba ñooñu gap bi ñu waroon combler dinañ ko mën a combler pour que ñu mën leen jox seen diplôme bu ko defee loolu jeex tàkk loolu aussi dafa valable ci technicien supérieur yi nga xam tey jii dañu war dem hiérarchie A. ñoom aussi modalité yeeg yëpp euh, am na délai fii ak le 5 février au plus tard beneen bi fii ak le 31 janvier dina dinañ dinañ dinañ entamer yooyu yëpp donc loolu déjà ay acquis la jëm na tamit ci allocation budgétaire yi pour waxtaan ci critère d' allocation yooyu ñu mun ko mettre en place pour permettre hôpital bu nekk par rapport ak sa charge en même temps yokk ko parce que loolu aussi suñu revendication la woon d' nañu pour waxtaan ak waa ministère des finances pour ñu xool nañ la ñuy changer pour que nit la muy liggéey muy àqam ñu war ko fay ak la mu tollool mu nekkoon ab signature protocole d'accord boo xamante ni amaloon nañ ko ci ajuma gi ginnaaw ba ñu amalee ay science yu bëri si di waxtaan ak sottante xalaat ba tax na ñu ngi ñaan rekk accord yooyu ñu respecté ko